d'abord nous sommes dans un contexte en tout cas de de part de de, de de disons de pouvoir partagé. Mm y a l'équilibre des pouvoirs chaque pouvoir en tout cas a un rôle à jouer et de mon point de vue comme je l'ai dit tantôt le pouvoir euh, exécutif est d'un côté n'est-ce pas le pouvoir, pouvoir euh, législatif, législatif le parlement est là mais également Euh, le pouvoir judiciaire. Mmh. Et la clé de voûte de tout cela, c'est le Conseil constitutionnel. Et ce Conseil constitutionnel est composé de personnes comme vous et moi. Mhm. Mais nous, on les appelle des sages et on leur doit beaucoup de respect. Mhm. De mon point de vue, maintenant, si des accusations doivent être portées envers ces augustes personnes, je pense que les accusateurs ah, doivent avoir des arguments valables mhm. et très sérieux pour le faire. pour le moment di j'attends en tout cas moi comme tous les sénégalais mhm. ah, kon nag waaw kon nag ñi ngi xaar ba xam euh, accusation yooyu ñu wax ndax ñi ko wax mhm. am nañ ci preuve yu doy yi wane nit ki ñooñu Euh, ger nañ leen. ah mais yéen gisuleen leneen ci suuf parce que jamono ji xëy na mën naa comprendre sa prudence parce que mm. nekk impliqué woo ci directement. mais affaire yi yamul rek ci waa PDS yi nga xam ñoo dugal loolu. ils ont eu le soutien des membres de la majorité de côté il y a Pastef qui dit que on doit laisser les travailler alors que y quelque temps de cela mm. euh, noonu. donc actuellement dafa mel ne yéen bi yéen rek yéen fi duggul yéen yéen waa jeu de pouvoir moo tax ñenn ñi di wax nii ñii di wax lay mais en tout état de cause comme ni ma ko waxee. Mm-hmm. ñoo xam ni ñu ngi nekk ci biti dañ leen a génne ñu bëgg a bon peut-être ils sont dans le rôle en pensant que peut-être que loolu c'est une façon de pouvoir réintégrer encore <laughs> le processus pour man loolu laa ko gisee. Mm-hmm. maintenant il leur faut comme ni ma ko waxee léegi ñu am des arguments solides pour le faire. kon jeu de pouvoir bi tam moo tax ba peut-être euh, ceux qui sont comme tu dis euh, les gens du PASTEF ils ont un ou deux candidats qui sont dans le circuit. Mm -hmm. peut-être aussi qu'ils jugent que ñoom ils ont suffisamment d'arguments pour pouvoir passer. Ah, donc pour man loolu yëpp pour man la lan la mën a expression man daal li ma dégg ñuy wax yëpp man. Mhm. man daal politique politicienne pour le moment laa ko teg ba ba may gis daal. ku nekk da ngay défendre sa boor ba ba may gis nag léegi des ah yi wane ne kii am na dëgg wala déet. mais yéen seen position ci mbir bi maanaam élection dañ ci war a dem euh, parce que jàpp ngeen ne les conditions sont réunies. wala comme ni ko ñenn ñi waxee il faut ñu leeral lii te mën na am ay ci élection yi. non ñun ñun wane moom laay wax léegi ñun ñu sommes dans le processus électoral. ñun donc on euh, doit y aller jusqu'au bout. pour le ñun ci loolu lañ nekk léegi nag leneen li ñuy def dañuy déglu institution ak ñuy wax. su fekkee dañ ci gis leneen lu jaar ñu am d'autres positions. vous mhm. vous nous entendrez mais pour le moment daal ñun on est intégré dans un processus qui jusqu'à présent n'est pas entravé et pour ñun notre la position sage